mais xamuñu histoire place bi bu ngeen gëstoo nii gis ngeen bâtiment bële moo nekkoon siège u papa Abdoulaye Wade mars bleu bu leen kenn tere bu leen kenn tere mbedd bi te man mii rek waxuma Ousmane waxuma ñuy toog man rek bu ma ne woon gars yi aywa jël leen yoon yi ñëla taxaw ci kanam duñ ci mën dara sama gars yi dañoo cib du xorom Fatick ba xorom amatul Fatick léegi xoolal ñoo ngi ci liquide liquide bi laa wuti woon lagros liquide bi parce que il faut ñu sangu ko nit boo ko dumaa nangu laay duma mbaa mu naan non duma yi fan la ndomba yi jaar da ngay wut xorom sotti ko ko mbaa bineegar te loolu moo ci des xoolal li ma bëgg a wax yëpp du ngeen ko wax mooy bu leen kenn yëpp ba pare xoolal par force la wax leen ko par force la yeewi askan bi par force la dañuy dem élection par force petit Antoine day démissionner par force Macky non troisième mandat par force ñun ñooy Sénégal merci beaucoup yàlla na leen yàlla defal jàmm merci Assane nee na liquide bi la andi dinañ ko soxla ñun ñëpp nañu uti liquide bi dañuy continuer ak allocution yi jox kàddu gi monsieur Assane Dia aca ñu tàcc ko bu baax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 Dakar, notre plateforme d'information.